wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyo beeg ziyaar yi Cheikh Mouhamadul ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko mboolem lu mu naalal Sëriñ Tuubaa ci lislaam yàlla defal ko ci lu kawe njortam barke Cheikhul Xadim Euh, noo ngi fi teew ci turu njabootu Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh al Khadim gi nga xam ne sëriñ Daam Abdourahman Mbàkke moo nekk ca bopp ba koy ñaanal moom itam wér ak gudd fan yàlla mottali ay mébétam ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa euh, di wax ne suñ teewaay tey rek mooy teewaayu cant xanaa ak seere kon ci liggéey bu mag bii nga xam ne sëriñ bi naal na ko te naanaloon ko sëriñ Touba ñu di ci dox ci ndimbalul yàlla ak sëriñ bi ba egsi ci fii nga xam ne eh, dañuy wax ne tey ñu ngi war a tàmbali liggéey bi te mooy liggéeyu université bi nga xam ne eh, mooy université Cheikh Ahmadul Khadim eh, li ciy cant yeeg yi nag mooy naal wi naalu sëriñ bi la woon mu wax ne ñaan na ko yàlla boroom ba yàlla may na ko ab jàngukaay sëriñ Muntaxa ak dégg wax jooju dëppoog itam muy ab cëram mu naal ko naalin woo xam ne wu yaatal la ndax ni ngeen ko xamee daara ji dafay tàmbalee ci njàng mi gën a suufe te mooy eh, dal alquran mi nga xam ne mooy toolub sëriñ bi te mooy léppam te mooy ak ubbikaay itam ci bépp jullit ci wàllu xam-xam waaye ba fa njob baxtalu njàng yam ci bépp xam-xam bu am njëriñ noonu la ko sëriñ bi naa naale euh, loolu nag bi ko sëriñ bii def da ci associer mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikhuna Ahmadul Xadim euh, ànd ko ak ñoom ci gën jaa rafeti anam ci xalaatin yi ci tëralin yi ak ci lépp loo xam ne ni doxal nañ ko ci ba yegg si fii euh, bi ñu tollee fii itam ci ni mu ko déggee mu jàpp ne loolu kat njabootu sëriñ bi moo ci war a jiitu njabootu sëriñ bi nag yaatu na mbooleem lislaam la mbooleem murit gi la waaye njabootu boppam gi itam loolu tax nag ginnaaw boo xamee ne moo ay bokkam ñi mu bokkal sëriñ ñoo naalandoo liggéey bi euh, di ci dox ba yegg si fii biñ ci tollee itam fuñ ci mas a toll ak ba ci sax statut yi nga xam ne ni moo moo constitué mbir mi lépp da leen cee da leen cee boole ànd ko ak ñoom ba nga xam ne euh, lu ciy def rek euh, jox na leen seen cër ba mat sëkk ba ci quota yi nga xam ne ni jox na leen ko ngir ñu war koo tàmbulee ci liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ bi tàmbulee ci loolu nag la ñuy waxee ne kon lii liggéeyub sëriñ bi la liggéeyub lislaam la euh, ñuy soññ mbooleem ku ci jàppoon ba mu yegg si fii di leen wax ne marqué nañ bu baax seen empreinte ci loo xam ne ni histoire dootu ko fàtte euh, ci biir loolu it kon ñuy wax ne tàmbali bi ak li ko taxawal ba mu yegg si fii la koy gunge ba mu yegg fa mu war yegg moo koy gën a moo ko gën a yaatu ngir buñ ne université wax fonctionnement daaray alxuraan ji rek lim tàmbuleegun ay junniy junniy gone la la leen di yor la leen di toppatoo la ñuy dunde la leen di jàngal administration bu ko war a gérer loolu yëpp ab liggéey la si loolu daal la ñuy waxee ne kon mbooleem ku ci dugaloon sa loxo nga xam ne da ngaa tàmbali waaye eggale ko kon liggéey bi des na ci ab tàmbali infrastructure yi ñu war a def ngir mu dalal njàngale meeg liggéey bi mi ngi fi des na donte am na luñ mën a tàmbalee waaye itam fonctionnement bi itam mi ngi fi kon daal képp ku bëgg a liggéeyal yàlla ku am nam mu liggéeyal Serigne Touba euh, ci xalaat ci xam-xam ci doole ci alal ab liggéey ngi nii boo xam ne nii benn bu ko gën a far gën koo ñor fi ne nii ci àdduna ci lislaam mën naa ne amul ndax liggéey la boo xam ne yéen ju sell la ko lal te itam ci liy tabax doomu aadama ci liy tabax ngeen ji jullit ci liy tabax ngeen ji murit ba ñu war a mel nañ war a mel xam lañ war a xam yegg fañ war a yegg euh, liggéey bi dara jiitu ko ci kon loolu la ñuy soññe suñu bopp daal di soññaat ñëpp ne ñu gën a taxaw rek ci ni ñu gungee woon sëriñ bi ànd ko ba mu jot a taxawal li ñu wéyal liggéey bi kenn bañ a teggi sa loxo ba mu gi fa mu war a yegg loolu daal lañ ci am ci lu ñuy wax di wane daal mbégte mbégteem njabootu Cheikh Ibrahim waaye mbégteem murit yëpp waaye mën naa ne mbégteem jullit yëpp ci liggéey bu mel ni ndax lii moom képp ku bëgg lu baax ku humanité ñor ku xam dara yi njëriñul xam-xam rek war naa doon sa yitte kon daal eh, ñu ngi sant di gërëm tey ñaan yàlla nag ñu ñaan yàlla mu defal nu ndimbal ak feex defal ko sëriñ bi ba mu yeggale naal bi ba sumb yeneeni naal waaye lim ci yéene itam mu amee ko nam ko bëgge waaye itam euh, li fi sunu borom dajale muy njaboot yi fi nekk yëpp yàlla def ci barke def ci kaaraange ba ba ba lépp luñ ciy dégg rek doon loo xam ne ni mbégteem bépp jullit lay doon ba ba lépp yegg fa mu war a yegg ci ak mucc ci barkeb sëñ Tuubaa mi koy liggéeyal euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.